boobu tollootuñu foofu loolu c'est euh, une époque révolue aujourd'hui on a un costard mooy on a un costard de de leader dans dans le football africain Sénégal toll na foo xam ne parce que nit nit da ngay assumer am na foo xam ne ba fa tolloo da ngay sa ay responsabilités c'est-à-dire que Sénégal foofu la tolloo à un moment donné on lii mën na nekk lii mënu nekk mais toll nañ ci football foo xam ne am nañu ay génération génération joueurs yoo xam ne tey quand tu vois même par rapport à la relève bi war a mën a am ci football sénégalais xale yooyu yëpp ku nekk tey war nga mën a prétendre jouer à un certain niveau la preuve a été donnée pour certains jeunes qui viennent de partir ou d'autres qui vont partir mais ils vont jouer dans des clubs réputés et ku nekk aussi tamit da nga fay nekk pour jouer ji comme titulaire et à partir de ce moment sur le continent africain mhm. am na loo xam ne ce sera en plus donc dinañu am ay joueurs titulaires dinañu am profondeur de banc boo xam ne war nañu mën a permettre tey ñu mën a pallier à tout absence mhm. c'est-à-dire que même le joueur titulaire tey indiscutable bi nekk ci équipe bi xalaat nañ ne bu fekkee ne bii mooy plan A bii mooy plan B bii mooy plan C mhm. te tey foofu la Sénégal toll donc pour man amatuñu lu ñuy war a mën a tiit c'est-à-dire que ku nekk nag da mën a ñëw jouer et match, ça se gagne sur le terrain. le terrain, C'est sur le comportement. Mm -hmm. Ne pas sous-estimer l'adversaire en se disant que la qualification est déjà acquise. Non. Mais il va falloir s'imposer sur le terrain et montrer à l'adversaire que moi aussi, j'ai envie aujourd'hui de me qualifier et de gagner mes matchs. Très